Tuuba du Ndakaaru du Kaolack du Mbuur Tuuba dëkku boppam la boo xam ne dafa am aw doxinu boppam ku fi nekk war a tënku ca loola war caa dox am melokaan wax nday wute melokaanu ko dëkk feneen bërki démb ci àllarba ji bi ñuy julli gee ñuy julli xamuñ li ñuy julli ndax ay yooxu te dara walu ko lu may ab football dong am am po am po ak te sëñ Tuubaa lim gënoon a bañ may am po la fi xew waroon a xew feneen fëlul ci Tuubaa dëppowut ak ngor dug taalibe duy teggin koo xam ne fi nga dëkk diggam ak fii sëñ fii la sëñ Tuubaa nekk ay mètre rek la tanga ne moom nga yaakaar jàpp ne boo ko gisoon lépp loo ne doo ko def loolu rafetul nga di ko def te dëkk bépp doon riir akum yoox ak i yoox te ampa ak caaxaan képp ko taxa du jóg suñ musta musta maslaa ci mpo lu toon lii day ci wex kuy fa am akum mpo musu jaa maslaa njabootam gi naka jekk loolu lañ doon sàmm si Abdul Ahad tàmbale ci Cheikh Modou Moustapha ñi fi jaar ñëpp ba ci Cheikh Modou Mountakha mi loola lañuy sam sàmm muy muy muy ndono loolee xam moo moo taxoon Sëriñ Tuubaa sañ ci dëkk bi moo tax mu def fi li fi def nekk dëkk boo xam ne dafa yéen mu nekk dëkk dëkk bu ñu jaamu yàlla di fa sellal ku fi dëkk mucc lore seytaane ak gàllankoor yi gàllankoor diggante ak borom yépp mu nekk suuf su barkeel itam soo xam ne lépp lu fi waay jëf dañ koy ful su dee jëf ju sell la ñu ful ko mu ëpp boo ko defee woon feneen waaye soo fi jëfee jëfi safaan dañ koy ful ndax barkeelu dëkk be tax kon ku ne war a moytu ku ne war a waaye ki dëkk Tuuba dafay da cee raw nag ki dëkk Tuuba mbaa ki ñëw Tuuba gannaaw dañoo gàdday sunu suufi maam ne sëñ Tuuba li nu bëgg a dëkkal bàyyi sunu lépp ñëw fekk si ko lay ngor ci nun tam tam tam jinu tam jinu ngor goo xam ne wóor na nu mun nu ko mun nu ko fay kon lañ koy delloo njukkal mooy nekkal ko ci ak bëggam lam rëdd la fa tegoon tànkam yar ci ak njabootam yar ci ay taalibeem foofee ku fa nekk boo tuddee ne ab taalibe laa itam da ko tuddoo rek waaye nekku ci yow te ak taalibe rek na mooy lu nu mën a jariñ sunu tey ak sunu ëllëg moom képp la nu mën a delloo njukkal Serigne Touba amul luñ ko mën a faye amul dara luñ ko mën a faye loolu nekkal ko ci bëggam gi sàmm ndonoom li wéyal ko. te bàyyi nag caaxaane tubaab yi nga xam li nga xam dañ dañ la ko indi rek muy ay caaxaan yoo xam ne tegewul fenn du dara loola loola wër wër wërti fis fii ci dëkk bi di Tuubaa nan ko ndaw ñi maa ngi leen ko bàyyi loo xel bu baax a baax a baax a baax ak ci mag ñi ndax la ci ra la ci ra léeg da ngay am looy ji ndaw ñi te fekk mag ñaa ngi ci mag ñaa ngi leen lijji ci biir kon ndaw ñeeg lenn ci mag ñi kon ñu ngi leen di bàyyi xel loolu ñu xam ne Tuubaa du Ndakaaru du Mbuur du feneen dëkk la bu sell bu tedd bu màgg bu làmb ngeneel yu màgg màgg màgg màgg te ko fii nag jalgate mën ngaa yàqule te doo ko yëg mën ngaa yàqule doo ko yëg na bàyyi xel bu baax a baax su ko dee loolu lu ñu doon tàmbalee la ngir rek xan am na lu nu metti te metti kilifa yëpp nag ci lii am ci barki dem ci àllarba ji te noo noo ngi ragal mu amaan nag ci bis yi ci kanam ndax la tax ñu ko def jeexagut kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax xam ne Touba lañ nekk te Touba bokkut ak feneen